كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وشات كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almusalliin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk yi li di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara dee ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul sunu boroom yokk ko fan dolli ko wér mu àggale mboolem ay naalam ak yéeneem di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal sunu bopp nu taalibe Serigne Touba yëpp nu del si fii ci seen télévision Lamp Fall ci seen émission xam sa diine bi nga xam ne seen mbokk Serigne Mor Mbacke moo ko baaxu taxawe xam nga ne ajuma ji weesu am na tomb buñ duggoon mu di alquranul karim ahamiya bi mu am ak li mu làmboo jotoon na ci indi ay tomb yaatu ci xamle lenn ci ngëneelam ak wàccuwaayam eh, ak ni mu ni eh, dayoom xeeti wàcc yi mu wàcc ak la ca aju ak itam bàyyi xel gi ko ab julli war a bàyyi xel ci di ko jàng ak di ko dund muy di ko jëfe ba tey tombab la ñuy wéyal ñu xamle woon ne am na solo am solo goog lu ëpp dëddu la moom alxuraan war nañ cee ngoy bu baax a baax a baax di ko jàng di ko jëfee te bañ koo dëddu bañ ko woon gannaaw ndax dëddu ko dafay ñaga sa dundu doomu aadama dëddu ko dafay jur yàlla subhanahu koy dafay jur mbugalam ëllëg bis penc ndax ni ko sunu Boroom wax ne waxadaataynaaka min ladunnaa dikra mana arada anhu fa innahu yaxmilu yowmal xiyaamati wisra xaalidin fiihi wasaalum yowmal xiyaamati ximla ci suuratu Taaha sunu Boroom wax ne jox nañ la alxuraan ju bàyyi ko fi noonu képp ku ko dëddu bis penc yàlla dana ko yan lu dis gan ay bakkaar ay bakkaar yu dis gan te dañu sax sax ca sax ca biir yan boobu ba faw ca sawara tey da maanaam la ko yàlla dana ci jële pay gox na gu ñaawa ñaali doon bis penc yan bu diis gan waxaat ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yowma alqiyamati ama xaala rabbi lima xasharten ama waxat kuntu basira xaala kadalika ataka ayatuna fa nasita wa kadalika yowma tunsa sun baam wax ba tey ci surtu taxaane ko woon gannaaw ku dëddu sunu alxuraan ji xalsal naa dund dund gu naqari dund gu ñagas dund gu metti fii ci na te bis penc su ma ko dekkalee silmaxa laa koy def su ne sunu boom lu tax nga def ma silmaxa te bi ma nekkee àdduna ma doonoon njàccaat di gis mu ne ko ah, ndax dama la jox sama alxuraan nga dëddu ko nga mën ko gannaaw na ko fàtte woon nag noonu lay jëfee tey jëf jëf yi ni koy fàtte ci yow yàlla ñu ci yàlla musal kon lu ëpp dëddu la su ma waxaat ci sot soxruf ne képp ku dund dund ko xam ne boolewu boolewu ci sunu alxuraan ji wa man rahmaan nu xëyit wax seytaan foofu la xarin képp koo xam ne mi ngi dund dund ko xam ne boolewu ci alxuraan boolewu ci di ko di ko jàng di ko dund naa ko boole seytaan soxoon moo koy lëcc lëcc fu mu jëm moo ko fi jëmee deen deen deen wëlbati ci sama yoon yoon mustaqim saa su nekk ñu jàpp ne ñu ngi ci jub ñu ngi ci jub te fekk nañu ci dara yal na ci kon ku jàpp ci alxuraan nag da koy mën a jural nag ay ngëneel yoo xam ne yu màgga màgga màgga lay doon yu bari waaye nag mën nañoo wax ne li alxuraan indi société bi mën nañ koo tënk ci ñeenti yëf bi njëkk mooy subulu salaam yooni jàmm dañ ko leeral ba ba ko ñaari mooy an najaatu min azulumaat mooy mucc ci xeeti lëndëm yépp a lëndëm gu mën a doon moo xam lëndëm mu zaahira wala lëndëm mu baatin ba ko ñetteel mooy al wusul ila nuur mooy àgg na ci dëgg dëggi leer ci biir ak ci biti ba ko ñeente mooy alhidayatu ila siratim mustaqim mooy gindi ko nag ba tege ci yoon wu ba nga xam ne mooy wasun borom tànn te mooy yoonu yoonu yoonu njub mu yoonu lislaam loolu ñeent yooyu la alxuraan indi société bi loolu tënk na ci benn aaya xad jaakum ilaa nuurun wa kitaab wa kitaab mubiin yahdi bi ila man tabi'a ridwan subula salaam wa yuxriju min zulumaati il-nuur bi idni wa yahdihim ila siraatin mustaqim suñ ba wax ci ay jooju ne dikkal ne leen bàyyi ko ci yàlla ak leer ak téere bu bir bu leer naññi wax dafay gindi képp ku ko topp ku ko jàng topp ko da koy jubale da koy teg ci kaw yooni jàmm subula salaami yooni jàmm di leen génne ci lëndëm leen dàbbal ci leer ci kàttanug yàlla di leen gindi leen teg ci kaw siraatul mustaqim kon an nuqtal ula muy muy muy bi ci njëkk mooy subulu salaam yooni jàmm mooy wépp yoon wax dafa làmboo jàmm ci biir ak ci biti ndax lislaam dafa nekk diinay no violence diine yoo xam ne mën a àndut fitna àndut ak onf waa diinay yërmandi la diinay laabiirante la diinay njub la diinay sell la diinay laab la diina joo xam ne amul forcé laa ikraha fi diin nit koy coobarewu tàbbal ca boppam waaye mooy loo xam ne leer kese la lamboo te mooy yoonu gëm gëm yàlla subhaanahu wa ak wéetal ko ak xam ko ak jaamu ko dëgg-dëgg ak jaamoom lislaam daf koo fàggul daf koo sàkkul société bi ci ñu melokaano woowu melokaan mooy bi njëkk mooy sabilu iman mooy bi njëkk ci yooni jàmm ba ko ñaari mooy sabilul xayaati tayiba yoonu dund gu teey goo xam ne dafay tege ci dëggi dëggi saada muy réussite totale dafay tege ci dëgg dëgg ak ndoom aadama ak nite nite goo xam ne ak mbayi ma du ca jeexiital ak kees du ca jeexital ak caytaane du ca jeexital yooyu yépp eh, alxuraan alxuraan daf koy indil société bii du société lislaam waaye ci sart nu jëfandikoo ko te di ko attewoo ci sunuy sunuy sunuy sunuy parlement di ko attewoo ci sunuy gouvernement su boobaa dafay rotal tooñ tooñaa ngi tasaaroo gi ñàkk dund alxuraan rekk la rayante bu mett bi ñàkk dund lislaam rekk la xiif bu mett bi mbas mi jafe-jafe yi nawet yi gàntu yi lor yi lorante gi fetteerlu gu ëpp gi ëppante doole gi nappante gi lépp li ko jur rek mooy ñàkk dund alquranul karim ndax lu ñu ci doon alquran indi na ci ay solution yu leer yoo xam ne mu ci tegee rek buñ ca tegee jàmm rek kay am xéewal rek kay am ñetteel ci yoonu jàmm mooy sabilu thiqati wan najaati min kulli darar dari dunya wal axira mooy yoonu yoonu kóolute kóllure yoon wu dëgër wax dafay ànd ak mucc kóolute gi wax na moo lay moo lay moo lay ci nga ci nga amee ak mucc ci lori àdduna ak lori àllaaxira lori àdduna ngir na sunu Boroom na su fekkoon ñëpp ñëpp maasañ ragal yàlla di ko jaamu dañu ubbi bunti asamaan bunti bunti suuf yëpp xéwal dafa bàyyi koon dafa tax alayhi barakaat min samaa wal ardi daa ubbi bunti asamaan bunti suuf yëpp xéwal di ca bàyyi ko di ñëw nit ñi ba lay dikk ci xéwal duñ ko mën a jeexal kon dafa kon kon yoonu njub la woo xam dafay indi jàmm rek mooy mooy xéewal gu dul jeex waaye di la musal ci jépp lor ju ànd ak ju àlaxira daf ko indi societé bi ni ko noonu mucc ci lépp na na na mu amee kóllëre ni lay mucce ci lépp lu koy xëcc jëme ko sawara wala mu koy xëcc jëme ko ci dundu ko xat wala dund ko metti dund ko tar muy ci àdduna muy ci bàmmeel muy ci ëllëg bis penc yooyu yépp alxuraan daf ko daf ci indi ay solution eh, xeet wi te xeetu yonent bi saa muy muy muy xeetu lislaam bi di société bi <coughs> ba ko ñeenteel ci yooni jàmm yi mooy sabilul adalati fil muamalat yoonu maandu ci xeeti jëflante yi jëflante diggante nit ak moroom nitam diggante borom kër ak soxnaam diggante soxna ak borom këram diggante waajur ak doom diggante nit ak eh, diine ji diggante nit ak parlament bi diggante nit ak état bi diggante nit ak lépp lu muy jëflanteel ci dundam lislaam indi la ko ci ay ci maanaam maandu gam laaj lislaam indi ay jàngale ak i solution indi ay xawaa it taalim yoo xam su fekkee jëfandikoo nañ ko dana doy sëkk ci laaju ci wàll gu maandu ci sunug jëflante ci biir ak ci biti ndax su boobaa ci la jullit bi mën a dund dund ko teey su boobaa boobaa kenn fi nekk day mën a jot ci xàqam kenn du jalgati xàq kenn kenn du tooñ kenn kenn nit du ko tooñ du ko tooñ su boobaa yii xew léegi du xew kenn du jalgati xàq jàmbur su boobaa ñàkk ñàkk gi nga xam ne moo xew ci àdduna nga xam ne moo indi nga xam ne rojo yaa ngi koy waxtaan di ci def ay débat télévision yi di ci def ay débat surno di ci bind ñu ci amal ay séminaire ci àdduna e lépp ngir nuñ koy xalloo maanaam nan nan yan yan solution lañ ciy am ngir ngir mën ko ngeen ko mën ko saafara muy warante gi tasaaroo ci àdduna muy ger xeetu ger corruption muy muy muy tooñante bi yàqante gi lépp Eh, ñàkk dellu ci alxuraan rek la kon solution mooy dellu ci alxuraan karim ci di ko dund di ko jàng di ko dund ci dellu ci alxuraan ci la ñu mën a muaalaja ci la ñu mën a saafara lépp ci la ñu mën a delluwaat ci dëgg-dëgg maanu gi nga xam ne lislaam jàngale nga xam ne soo amee rek yooyu yëpp day daal di mën a saafarawu alxuraan kon son soññ nanu noonu mboolem jullit ñi ci yërëmante ak dimbalante ba euh, ñàkk dimbalante lislaam taral ci lool mooy ka am fuuyoo ko du dimbale kenn du taxawu kenn lislaam euh, ŋàññee ca loola ba tax yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne man baata shabaanan wa jaaruhu jaa'in wa huwa ya'lam fa laysa bi mu'min képp kan dafa fanaane ab ragal mooy dafa reer ba suur tëdd dëkkandoom bi mu sësal kër fande amul lum reere mu xam ko te faju ko nen doo ab julit nga xam ko te faju ko nen doo ab julit mooy gëmoo yàlla lislaam nagul sa gëm kon loolu kon kon taaral na kon ci xuppee ci ñàkk dimbalee suñ dellu ci alxuraan kon dund ko daan teqalikook ñàkk gu tar gi nu nekke kon mën nga mën ngaa wax ne Eh, ni ñuy xàlloo ni ni ni ni ni ñuy ni ñuy a saafaraa mboolem jafe-jafe yi nit ñi dund ci àdduna tàmbalee nit ki ci jëmmi boppam ci boppam diggam ak boppam ruuxiyan wa badaniyan wa ijtimaayan lépp ak lépp lu aju ci dund société am ci diggante nit ku nekk ak moroomam diggante dëkkandoo kam dëkkal diggante soxna ak borom këram diggante waajur ak ba doomam diggante nit ak mbokkam diggante nit ak uh, état bi diggante nit ak parlement bi moo xam muy ci wàllu iqtisaad wàllu wàllu wàllu économie politik ci gàtta ma nga mën nga ne alxayaatul bashariyatu kulluha jaa alquran li xalliha wa muhalajatiha yépp kon mboolem dundu nit ki lislaam dafa dafa dafa indi ay jàngale indi ay yoon yu jub yuñ ko mën a xàll yuñ ko mën a saafara waaye ci saw bus nag ñuy jëfandikoo ko mooy ñu di ko jàng di ko jëfandikoo di ko àttewoo def ko ci suñuy dustuur suñuy constitution ñu fexe ba lañ cay def dëppoog la njàngaleem alxuraan di ko àttewoo ci sunuy tribunaux souvent nag ci lay mën a saafaraan nag mbooleem yi nga xam ne yëpp nit ñi ngi koy dund ci ay jafe-jafe moo xam yu feeñ la moo xam yu nëbb la kon loolu mooy subulu salaam tomb ñaare mooy an najaatu min az-zulumaat alxuraan dafay indil nit ñi luy tax a mucc luy musal ci lëndëm yi moo xam ne lëndëm bokkaale ndax bokkaale lëndëm la eh, ndax dafa bokkaale dafa làmboo lëndëm yoo xam ne dafay gàllankoor nit ki ci njub alxuraan nag dikk ngir ngir jañal ko societé bi jañal société lëndëm goog yi euh, ni ko noonu zulumaatul kufr lëndëmi kéefar kéefar léppam lëndëm la lëndëm ak mooy yàlla ak i ay lëndëm la lëndëmi ayi bi ak caay caay yi yëpp alxuraan dafa ñëw ngir fegal ko njulit bi wala société bi zulumaatu nafsi wal hawa lëndami bakkan ak bànneex ndax bakkan ak bànneex noonu lañ yoo xam ne waxtu nekk dañu xëcc jaam bi di ko di ko tàbbal ci lëndam di ko ni di ko tàbbal ci lëndam di ko moyloo yàlla di ko jëfloo bàkkaar di ko ayibloo di ko di ko di ko xiirtal ci caay-caay loolu moo mooy mooy dem ba muur xol bi moo dox diggam ak leeru yàlla zulmatul jahli muy muy muy lëndami réer ñàkk xam dara lëndam féetiku kaw zulumaatul xabri muy lënd mi bàmmeel lépp alxuraan da cee in dafa ñëw ngir wuññil ko société bi su fekkee sàtt nañu jàng alxuraan te di te di ko jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo ba ko ñetteel mooy alwusulu ila nuur mooy su la génnee ci lënd gi ngir mu tàbbale ci ak leer nuurul imaan muy leeru gëm yàlla ndax gëm yàlla leer la nuuru tawxiid leerug wéetal yàlla alxuraan daf koy def ci xolu doomu aadama nuurul islaam leerug dund dund dëggi dëggi nag diine mooy womatu ca nuurul maarifati billaahi taala mooy leerug xam yàlla ca kemtalaay nañ ko nañ ko mën a xamee leerug am basira muy gis ci sa xol leerug mucc ci gépp lëndëm alxuraan dafa ñëw ngir àggale ca leer googee mboolem société bi su fekkente ne ba fexe na génn ci lëndam yee dañ di xëcc tabal ci leer yii ak leer bis penc yow mi yasaan nuruhum bayna aydihim bis penc fa ñuy dekkee ba fañ nuy àttee diggante bi soree la ay ay ay ay mili mili kilomètre la kilomètres yu baree baree bare ay junni junni kilomètres fa ñuy dekkee ak fa ñuy attee oto nag amu fa avion amu fa lu fa am mooy jëf kenn ku nekk sa jëfe lay yóbbu diggante bi nekk diggante bu lëndëm lëndëm goo xam da di ko daj lëndëm këriis suuf sa it si ngay jaar di dox luy fees dell ak luy gaañ ak luy jame luy lor jullit bi gëm yàlla nag doon dund alxuraan suñ mooy defee def ci xar kanamam leer gu mel ni jant bi muy gis fi muy jaar bu ko defee it leer ga jëf jëf jëf ñoom jëf muy dund dund alxuraan soppali ko war a waaye mu war ko mu yóbbu ko ci pénc ma doom benn coona doom benn fitna am koo xam ne tuut lay am ci leer day mel ni li mu wax set buy taw léeg ak leer ak ak ak melax ne xay nga gaaw dox ñaari jéego mu fay nga taxawaat ba ba ak euh, geneen melax ne xay yi nga gaaw dox ci ñaari jéego am ñoo xam ne seen jëf noonu noonu lay noonu lay deme am ko nag ka ca yées nag moom malaakaay ñëw ne jàpp ci tànk bi xar kanam dëpp ci suuf mu di ko diri jëme ca pénc ma xarkan wi day dëpp ci suuf malaaka jàpp ci tànk bi di ko diri kooku jëfa ma ko yóbbu ca loola kon ñàkk dund alxuraan nag mooy mooy mooy mooy jur yooyu yëpp loolu su ma di junj ci yow ma yasa nuuruhum bayna aydihim bis ba nga xam ne seen leer ga dafay da day day day fenk ci seen xarkaan ci seen kanam ñu di ca sukkandiku di dox jëm ca jëm ca pénc ma alxuraan kon dafa ñëw ngi génn societé bi ci lëndam yooyu yooye tàbbaleen ci leer yii bi ko ñeenteel mooy alhidayatu ila sirati mustaqim mooy di leen gindi leen ci siraatal mustaqim ba njëkk mooy istixaamatul ubudiyya allati tastawi ala kitaabu sunna mooy leerug njub gu tege ci dëgg-dëgg ubudiyya goo xam dafay tege ci kaw alxuraan ak sunna mooy danga koy dund na ko lislaam jàngalee dëppale ko alxuraan dëppale ko sunna istiqaamatul axlaaqiyya ak njub ci wàllu jikko mooy jikko ju rafet ji lislaam jàngale ci tasawuf jàngale ko ci imaan ak lislaam ci wàllu jëf yi ak jëflante yi lépp nga sàmm sàmmanteeg moom eh, ci rafetal sa jikko alxuraan dafa ñëw ngir jeexital ko ci société bi loolu nag moo koy ñoddi ba teg ko ci kaw yoonu aljanna na nga xam ne mooy daarul qaraar këru sax ga ngaan soo fa xasee dem amul tuxóote jëmati fenn fa ngay sax ba fawwu de su ci tuxóote jëm fenn yooyu yooyu jeexital yu yu yu yu valeur mooy alxuraan di jeexital ci société l'islam bi te yoonu mucc ci mboolem taxaddiyaat almuasir almuasir mooy jafe-jafe yi ñuy dund ci àdduna yëpp mucc ca yooya ndax mucc ca mooy alxayaatu saidatu naajixa mooy dund gu réy gu réussir mooy dund gu rafet dund gu mucc dund gu dëppoo ak texe li ñuy tudde saadatu duniyaa mooy euh, euh, li ñuy tudde saadatu daaree ni mooy texe àdduna walla texe àdduna mooy loolu mooy sa dund jag nga am fi jàmm am fi xéewal mucc ci lëndëm yi ne ci biir leer yi di jàmm yàlla di ko sellal mooy mooy mooy mooy as saada al aajila waaye tàbbi àjjana ëllëg na mooy asaadatu ajila soo boolee ñaar yëpp mooy am nga saadatu daal yi ma am nga texeeg tey am texeeg ëllëg te texeeg tey mooy jur googu ëllëg ku texewul tey du texe ëllëg loolu na kon doon lu lu lu lu lu mat a bàyyi xel ci jullit bi di ko dund tey rafetal aw dundinam ca ca loola yooyu kon lislaam daf ko indil société bi julli bi war cee bàyyi xel moo tax Sëñ Tuubaa mii sunu yaakaar tegoon alxuraan fi mu ko teg ndax moom daa wax ne bi ma xam bi ma xamee ne bis ci kenn ku nekk la doon sa pàggu téef dañ ko jóor ci sa kanam ni ñu njëkk ak ñu mujj ñépp teg ci seen bët ba ma xamee lool laa def alxuraan muy sama pàggu alxuraan doon léppam mu doon ko jàng di ko jàngalu di ko dund loolu dañ ci ñëw ci kanam waaye doy njëkk indi lenn ci ay waxam ci alxuraan ci wane nga nii la alxuraan ak dara jim jim làmboo am na xasi goo xam ne koo tënke wa rabbukal akram nga xam ne alxuraan rek la ci la ci leeral eh, ab dayoom jàng ko ca la wax ne qiraatul qur'aani amnun min la'iin wa min shaqaawatin wa min makril mu'iin jàng alquran sécurité la wax dafay dox sa diggante ak seytaane dox sa diggante ak texee dig tey ak ëllëg dox sa diggante ak pexem seytaane seytaane du man ci yow dara rabiha abdun yaqra'u alqur'ana wal jinaani laa yura dham ana wala laa yara dham ana nee na bépp jaam buy jàng alxuraan day tonowu na tonow mooy bénéfice te bis penc du fa gis dara luy niru aw mar mbaa luy niru ab coona mbaa fitna du ko gis mukk bis penc ba kër mi tàbbi aljanna neen ba kër wi tàbbi du gis dara lu ko naqari du aw mar du ab xiif du coona du dara wax ne inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata fulku jàng alxuraan mooy dëgg dëggi nguur neen nguur dëgg mooy jàng alxuraan waaye jàng alxuraan itam ful mooy bato la bato la bu lay bu bu bu lay tax a mucc daa mel àdduna géej la ngoo xam ne boo dugal ci bato wala ci gaal dangay lab waaye nag gaal ga musal nag ba nga mucc mooy mooy mooy jàng alxuraan mu ne moo tax mu ne alxuraan nguur la jàng ko al nguur la waaye gaal la bato la ci képp kuy sàkku mucc na ci dugg su ci tàbbee faaw dana mucc wujuhu qaari il kitaabi naadira yowmal jazaa'i lil jamili naadira nee na ñiy jàng alxuraan ëllëg seen bis ëllëg bis penc seen xar kanam dafay nitax seen xar dafay leer naññ dafay bay nga xam ne saa bu ne jàq xar kanam mbégte nga cee nga cee boole ko waxtu ne dañ naan jàkk di xool yàlla bis penc maanaam yàlla fii lañ ko di waaye bis penc yàlla dana feeñu ay jaam ñu gis ko waaye nañ koy gisee nag mii ko tolloo kemtalaayal jëf yi am na ñoo xam ne buñ duggee aljanna benn yoon la ñuy gis yàlla am ñu koy gis bis bu ne benn yoon am ñu ko gis waxtu wu nekk am ñoo xam ne duñ tàggoog di ko gis mukk te gis yàlla moo dàq fuuf aljanna al aljanna li muy neex neex neex neex li muy xéewale xéewale gis yàlla ko dàq mu ne yu doon jàngal Alxuraan waxtu nekk danaan jàkk yàlla di ko xool di ko gis waxtu nekk seen xarkat ni tàlli nitax naat ribxu alladi yadlul kitaaba ribxu man yaduumu daa saadatin ma al aman tono bu kii jàng alxuraan mooy tono bu ki sax ki sax di borom bu texe texe gu ànd ak sécurité ma ne ki am sécurité fii ci àdduna am secret bis penc am am am am am dund tabial aljanna ëllëg amuk texe nee na tonobu googu mooy tonobu kii jàng alxuraan mooy fii ci àdduna dafay amuk texe ëllëg bis penc dafay amuk texe dafay am itam sécurité dafay am kaaraange dafay am dafay am kóolute barakatul quraani faaqad zanna qaari'uhu yafuuzu xaytu anna nee na barkeb alxuraan féet na kaw njor maanaam foo ko jot foo mën a xalaat ci sam xel ci na barke alxuraan war naa àgg fii rek nee na alxuraan jéggi na foofu barke ramb na foofu mooy xel mënu koo xalam ba xam ko ndax alxuraan melukaan yàlla tam yàlla yàlla moo féete kaw xel yàlla bind xel moo tax xel mënut a peeg yàlla te alxuraan lenn la ci melukaan yàlla muy ay waxam moo tax njort doomu aadama ak ak xelam mun mun munta jot alxuraan kon kenn ku nekk fa tolluwaayam toll rek fa la fa la koy mën a xamee waaye nag waaye nag waaye waaye nag njortul kese ak xelum kese munu munu ko dab mu ne ki koy jànge nag fu mu mën a jëm rek day taxe fu mu mën a jëm day taxe fu mu mën a jëm day réussite fu mu mën a jëm itam mbiram dafay jag xaari oxo yee foosu xaytu an na fu mu mën a jëm rek waxa ne barakatul kitaabi taxmil qaari'a mimma min al bala takunu taari'a barkab alquran dafay aar ki koy jàng saa bu musiba saa bu mbas wàcce saa bu mbas jekk-jekkee xew mbas mu wàcc naan barke alquran daf cay aar ka koy jàng kon ndekk kon solution ci mbas mi mooy jàng alquran bu jë sa siñ mu taxaa digle ay yoon ñu daje jàngal alxuraan loolu luy musle ci mbas mi la bokk sëñ Tuubaa ko wax sëñ ma ne barke alxuraan dafay dafay dafay aar ki ki koy jàng ci bépp balaa muy mépp mbas moo xam dafa dafa jekk-jekki xew barakatul kitaabi taxmil qaria mimma minal bala takunu taria wax ni itam xéewalug alxuraan ak ndàmbam du jeex mukk mukk mukk mukk la alxuraan mën a jur ci njariñ nen du jeex mukk amul fu mu yem te ki koy jàng it doo dajeeg mukk luy niru njàqare lay sa laysa naa abada qaari'uhu lay yulaaqi kabada nee na ndàmbul alxuraan muy xéewalam muy ay màngasiinam du jeex ba mukk ki koy jàngit du daje ak lenn luy niru njàqare wala tiitaange wala jafe-jafe ila siwal qaari yaqsudu lain yasuuquhu li gayrihi tardul muin nee na seytaane dana jublu ci kudul ki jàngal Qur'an dana jublu ci keneen waaye du jublu mukk ci ki jàngal Qur'an tayit alxuraan daf koy daf koy màng jëmi ko feneen moom moom kiy jàng feneen ful ful ful ci seytaane di wammat di màng màng seetaan di ko dàq jëm ko feneen fudul ci fudul ci ki jàngat alxuraan bi ilaa siwal xaar yaqsudu lain yasuquhu li ghayrihi tardul main nga xam ne dàkkoog yàlla mi nga xam ne mooy dimbale ji mooy dàkko seytaane mu jëm feneen fudul ci ki jàng alxuraan li qaari il kitaabi inda xayru nuzuli kiy jàng alxuraan ci biir kër yi ci lu nëbb ak lu feeñ neen la mooy ngeen ji wàccuwaay nee ki ko jàng am na ngeen ji wàccuwaay maanaam kiy jàng alxuraan ci kër yi ci lu nëbb ak lu feeñ nee na am na ngeen ji wàccuwaay ngeen ji wàccuwaay nag mooy mooy aljanna ilal jinaani duuna raybinil kitaab yaquudu man laazamahu bila itaab nee na alxuraan nee na dafay wammat ki takkook moom jëmi ko ci lu dul benn sikki sàkk suñu dubaan kiy jàng alxuraan ki takkook alxuraan alxuraan da koy wammat jëmi ko aljanna ci lu dul benn sikki sàkk te du ànd ak benn yeddeel du ànd ak benn jafe-jafe du ànd ak benn gàllankoor kitaaba rabbi innaka alkitaabu wa fiika qaala dalika alkitaabu dafa jàkkale alxuraan ne ko yow yow téere bi yàlla bii yow téere sama borom bii yow rek kay téere bi yow rek ab téere ndax ci yow la suñu doon ne kitaabu loolu rek kay téere bi muy alxuraan ribxu alladi yadloo ko yaa quraanu <coughs> ribxu fatan yaxbitoo aqraanu neen yow alxuraan <coughs> ki lay jàng ak tonowam mooy tonawu cam soo xam ne mas gépp dañ koy ñee maanaam ku lay jàng naa dem ba ñëpp dañ ko dañ ko ñee kon tonawu ki lay jàng la ki nga xam ne mas daa dem ba ak mas ñëpp mas ko ñee <coughs> man bi ka laada xaafahu shaytaanu wa sarrahu lmawdiu wal awtaanu nee na képp ko wéeru ceew alxuraan képp ko wéeru ceew seytaan daf koy ragal di ko daw te barab yi dañ koy bége ak réew yi maanaam ki jàngal xam bu mu wàcc barab ba daf koy bége réew mu wàcc réew ma daf koy bége suuf su mu wàcc suuf sa daf koy bége kon mbégum barab yépp lay doon waaye doon naqaru seytaane doon musibaam mu koy dàq ba seytaan da koy da koy ragal di ko daw moom jàngat alxuraan bi alxuraan lépp di dëgg bàyyi ko ci dëgg ànd ak dëgg jëm ci dëgg min alxaqi jaa alxaqu lil xaqi fi saxbi bi xaqin mubinin laa yuaanihi min saxbi min alxaqi bàyyi ko na ci dëgg ga di yàlla wala jaa jaa dikkan alxaqu alquran mii di dëgg min alxaqi bàyyi ko ci yàlla may dëgg lil xaq jëm ci yonente bi muy dëgg ànd ak saxaabaam ànd dëgg gu leer te mooy diine lislaam jim jim indi muy la muy jàngale te ànd te du jànkonteeg nag benn jafe-jafe di téere boo xam ne Sëñ Tuubaa ci la ñuy yaakaar yërmande yàlla ci alxuraan la ñuy yaakaar yërmande yàlla ci la ñuy mucc yi àdduna alaxa ci lépp lépp lépp luy tiis ak lépp luy njàqare kitaabum bihi narjo min allaahi rahmatan wa nanjo bihi dunya uxra min bi mu ne yaakaar nañ itam ci yàlla ci barke alxuraan ngeen di càkkutéef maanaam su lañu sàkku lépp ci yàlla ñu ngi ko yaakaaree jote ci barkeb alxuraan tey ci barke alxuraan la itam la ñuy tuufoo maanaam ci la ñuy jariñoo ci lañuy ñuy texee ci lépp lu ñuy jañ ak lépp lu ñuy ñoddi maanaam lépp lu ñuy jañ ci barke alxuraan lañ ko jañee lépp lu ñuy ñoddi ci barke alxuraan lañ ko lañ ko ñoddee suñ ci jot mooñ ca jotale rajawna min almawla bihi xayra matlabi wa fuzna bihi fi kulli dafin wa fi jalbi nee na mu jëne nekk ndàmb lu des muy xéewal gu fi des ba faw nekk personnalité ak tedd nga ñeel nu di tedd nga jot daf ni fegal ci la ñu yàlla fegale ci barke alquran la ñu yàlla fegale lori lépp luy dox lori lépp luy njukk laqad saara kanzan baaqiyan izzatan lana yaqiina bihil mawla ada kulli dabbi suñ duma neen saa bu nu jàngee ab aaya suñ boon defal na ca lu xéewal gu nëbb mën defal na ci xéewal gu xam ndax da nëbb ci ku dul ci ay mbóotam ya nga xam ne mooy ñoddi ak cofeelam ida ma talawnal aaya fuz bi maxtafa ala gayrina min sirrihil jaalibil xobbi neen ci barke alxuraan note suñuy noon suñu noon yëpp ci barke note alxuraan mooy li ñuy womat ci yàlla mi nga xam ne mooy akaram di wahab mooy ki gën a tedd te mooy mayaakon bi ci lu sori ak lu jage qaharna bihil a'daa turran wa qaadana ilal akramil wahhabi fil bu'di wal qurbi barke alxuraan tam ci la ñu teqali ko noon ci lañuy ñu ak sikki sàkka ci lañuy ñu ak tiis ak balaa ak i nattoo ki mbas ci barke alxuraan la amee naataange ci barke alxuraan itam moo lépp luy lépp luy xeetu bekkoor ak jafe-jafe tafaaraqanal a'daa wa wal balaa bihi wa uninal xis ba baax danti fal jan bi baax danti baax danti fal jan bi naan ci barkal barkal xadim la ñuy tuufoo la ñuy amee la lépp lu nuy gind ci barke ki nga xam ne tagg ko moo mujj di sama aada tagg ko mujj na di sama aada mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wafir naa bihi mimman hadana talaqiyan bi jaahi allati am daahu xadxada dë bi dë bii kon alxuraan kon mën nga ne mooy lépp kon lim ci lim lépp ci ay ngëneele ki xéewal mooy alxuraan daf ko làmboo wax ne amul morom mos téere boobu nga xam ne lottal na mboolem éloquent yi loo waay maanaam maanaam mën wax alxuraan boo dikkee ci alxuraan lottal la tayit Eh, indi lu ni mel indi lu ni mel lottal na mboolem xalima yi genn xalima mënta bindu lu mel ni alquran ne amal kitaabu alladi xad ajasal bulaga wa kalla an mislihi mayur ay fal xalama képp koo xam daal yaa ngi yaa ngi yuutal xalima yaa ngi yor xalima di ko yuutal mënoo indi dara lu mel ni alquran alquran dafa waxoon bu ngeen ko mënee indi leen benn benn saar rek bañ ko tëlee mu ne kon indi leen benn aaya bu ñu ko mën kon indi leen benn baat rek nga xam ne benn baat képp bu néew alxuraan kenn mënu kenn ko indi mu ne kon ne yéem naa tedd ngay téere boo xam ne dafay saafara mboolem ay ràgg téere bi nga xam ne da ma ma xettile saxaaba ya yépp waaye ñi ànd ak man itam téere boobu ci laa leen xettile ci lépp luy luy luy texee di lépp luy gumba xol lëndam xol ak alkande ci alxuraan laa leen ko fegale akrim bihi min kitaabin xat shafaa ilalan xadan xadat sax sax ba turran min radan wa ama mooy téere bi nga xam ne amul benn sikki sàkk ci ne léppam ak njub la ak njub la ci képp ku ragal yàlla eh, di njub goo xam ne koy fegal dafay daf koy fegal lor eh, di ko woon itam lépp lu aw yoon di ko jubbante di ko teg ci kaw kaw yoon eh, di ko texeel wa huwa alkitaabu alladi laa rayba fihi hudan li kulli man yattaqi durran yuri wa kama alxuraan rek kay njub gi moom rek kay yoon wu jub wi ci noonu kon nag texe ñel na jëmm joo xam ne dafa ngoy ci alxuraan dafa ko daf ca téye muy sukkandiku kaayam wa huwa alhuda wa siraatu almustaqimu lana tuuba li shaxsin bihi xat kaana alxuraan mooy mooy xéewal gi alxuraan mooy kawe gi alxuraan mooy leerug mboolem way tedd yi nee na képp ku ku jàppul ci alxuraan nee na kooku ab xolam dafa dafa wéradi maanaam ku dul képp ku dul sàkkoo aw yiw ci alxuraan rek kooku ab xolam dafa feebar wa huwa al muna wal ula wa nuuru lil kurama wa man bihi laa yurumul xayra xat saquma alxuraan rek kay jub yoon wi nga xam ne dafa jub xocc amul benn dëng dëng dëng amul benn wiiraas daf ne coow rekk jub ba aljanna ci képp kuy dox te mooy la ko la ko amalee itam lépp lépp lépp xéwal fa huwa sabilu allati ma fihi min iwajin li saairin lillati xat awjada niama képp kuy dox jëm ci yàlla daal jëm ci yàlla mi maye xéwal yoon wi gën a jub ci jëm ci yàlla mooy alquranul karim te amul benn dëng-dëng alxuraan làmboo yi làmboo digle làmboo tere làmboo ay dëhël làmboo ay tëkku lépp dañ ko caa saxal ngir bëgg gindi rek bëgg gindi ki nga xam ne dégg na ko ndax ka ko dégg mooy ka nga xam ne saa bu ci gisee ndigal jàpp moo ko tax a mu jëfe ko su ci gisee tere jàpp moo ko tax a mu bàyyi ko suñ ci dëlee dara la la lañ dëlee ne lii kat yàlla nga koy may ku mel nanga mu fexee mel noona lam ci tëkkoo ni ku mel nanga yàlla tëkkoo na lii mu fexe ba moytu woo melokaan loolu mooy kii dund dund alxuraan mooy suñu bon da ko caa def ngir bëggee nit ki gindi ko ngir tege ci aw yoonu njub amrun wa nahyun wa waadun kal waidi maan xad usbitat fiihi irshaadan irshaadan liman fahima xad usbitat fiihi irshaadan liman fahima Sëñ Tuubaa képp ko saxal nag jublu yàlla ci di ko liggéeyal moom alxuraan man na ko jubloo yàlla ci liggéeyal alxuraan du dajeeg sawara tey ak ëllëg du dajeeg wenn mbetit wala wenn tiis sa yëg ëllëg fa ñuy dem xasda wajhillaahi xidmatahu fa innahu laa yulaaxi naara wal alama alxuraan mooy buum gu dëgër gi nga xam ne du dagg du firinciku mukk eh, te ka jàppit def na ko gindi des ko musal ci lépp luy xeeti pertaange muy pertug tey wala pertug ëllëg fa innahu l urwatul fa mumsikuha yuhda wa min jumlatil isyaani wa xusraani xatu osima yuuxu daa wa min xusraani xatu osima Sëñ Tuubaa képp ku taxoog alxuraan saxoo jàng ay xarafam ànd di ko settantal di def tadabbur faw rek dana màng lam bëggoon lépp dana ko am wa man yulaazimhu yatlu dahra ahrufahu maa tadabburi fiiha yaxtawi ganama wala ganima moo tax mu ne al moo tax kon nag ak ñàkk man Sëñ Tuubaa ñàkk du dox sama digg ak lor du dox sama diggante ak alxuraan ay tuuma du dox sama diggante ak alxuraan maa an kitaabillahi xaaliqina faqrun wala dararun saddal la si tuhima te yooyu gàllankoor nañu bare bare bare bare moo gàllankoor seytaane moo gàllankoor yéefar yi moo gàllankoor képp kuy ku texe di nen itam eh, yii may bëgg a tudd di juróom benn melokaan yoo xam ne melokaani caay caay la nga xam ne moo gàllankoor képp ku ñu xañ aw yiw neen yooyu dox duma gàllankoor mukk ci alxuraan ndax làmbuwuma ci benn maa saddani anhu ashyaun tuaddu ila sab'i razaili saddat kul kul saddat kulla man xurima danbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunya ictimaadun lil wara nahama doful yaqini lesi saddal bariyata an tawakkulin wabtidaa un tarku di xutima nee na bàkkaar akug rëy ak nuur ci bàkkaar nuur ci am po bëgg àdduna sukkandiku bindeef yi ak euh, yaqin wóolu yàlla gu woyof ak ni ko noonu ni bare bidaa nee na yii yii mbir bàyyi ko warugar la neen yooyu ndox sama diggante ak alxuraan ndax yooyu uma ci benn te yooyu neen mooy moo gàllankoor képp koo xam ne ku ñu xañ aw yiw la bàkkaar rëy noor ci mpo bëgg àdduna sukkandiko bindeef yi don afal yaqin muy muy muy muy wóolu yàlla gu woyof euh, nee na yooyu moo gàllankoon nit ñi ba ba ba wakkilootuñ ci yàlla moo leen tàbbal itam ci bànneex ci ci ci ci ci bidaa la bëgg wax kon juróom muy juróom-ñaari yëf la bàkkaar rëy noor ci mpo bëgg àdduna sukkandiko bindeef yi ak euh, yaqin gu woyof ak itam bari bidaa su ko defee nag moo tax Sëñ wax ne leer na ma naññi ne yàlla moo may alxuraan ba nga xam ne uma e, ci benn sikki sàkk walla benn lënt badaaliya anna allaha jalla jalaaluhu xabaani bi dikrin laa jaar mushabbiha mu ne xanaa gisoo ne yàlla ci alxuraan la toroxale Musaylimatul Kaddaab Musaylimatul Kaddaab moo doon jéem a indi alxuraan mu ne ne ne jékki tëgg ay baatam rek yoo xam day fexe ba daane yee niroo ko mel lu mel wala ante dabu xaafal wala xadaxa lu mel noonu fexe bi indi baat indi ay baat daan lii kat dafa ci alxuraan la bokk yéen na Jibril da ko fàtte wala yu mel noonu daal moo tax saa suñu tuddee ko musalimatul kaddaab mooy musalimu mën a fen mi nee na Sëñ musalimatul kaddaab ba mu indee nag yooyee te nga xam ne lépp lënt la njaxas la ci alxuraan la ko yàlla gàcceele alam tara anna allaha axza bi dikrihi kaddaabi id jaa wa shabbaha neen téere mbii alxuraan nag moom yàlla mooy buumam gu dëgër gi nga xam ne waxtu nekk man Sëñ Tuubaa dama ko jàng li feeg maa ngi dund tayit ci la ma yàlla dajjile mbooleen samay jëng mooy lu may gàllankoor ci alxuraan la ma ko yàlla daggale kitaabuhul urwatul wusqa urattiluhu maa dumtu xayyan wa anni fakk tasfidi dama koy jàngit li feeg maa ngi dund damay saxal di ko jàng te doyloo koy sëkk nag tayit ci lay dàq iblis fu mën a jëm urattiluhuma ɗum to hayyan wa aktafi wa anfi bihi iblisa anna anni anni mata dabba kon loolu lépp kon Sëñ kon wane na mel eh, dayub alxuraan moo tax nag alxuraan doonoon léppam mu doon ko dundu doon ko jàng di ko wane nga xam dafa wax ne alxuraan may sama lépp may sama xarit may sama soppe may sama may sama lépp kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walilaahi bii sakantu neen alxuraan jox na ma sama lépp alxuraan jox na ma lépp ma ne ma jox ko sama lépp kitaabu rabbi kaana lii jox na ma lépp wa kuntu lahu ma ne ma jox ko sama lépp maam moom na ñu bokk dëkka dëkkaaleeg yàlla subhanahu wa taala xarit nag mooy ko xarit mooy ki nga jox sa lépp mooy mu jox la léppam mooy xarit mooy soppee moo tax mu ne yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa wala wa xablu kunta tabibi yëpp am na yow téere sun borom yow rek yaay sama soppe yaay sama xarit naka jëkkit yaay yaay sama docteur yaay sama médecin bi may faj wax ne alxuraan may sama ndàmb may sama may may may sama trésor may sama compte bancaire alxuraan ak xadis ak adab neen ñooy sama compte bancaire di sama di sama trésor di sama coffre-fort di sama lépp waaye du ma dajale xaalis du ma dajale wurus kanzil kitaabu wal xadis wal adab laa jamu fiddatin wala jamu dahab neen ci liggéeyal alxuraan itam ak xadis ci la may doon ne man Sëriñ Tuubaa waaye desuma doon ci xadis desuma doon ci wurus liggéeyal alxuraan ak liggéeyal sunu si yenn doon ci may de waaye desuma doon ci ci wurus doon ci itam ci xaalis bu ñu bu ñu doon bi xidmatil kitaabi wal xadis yathbutu laa bi dahabi mawruusi nay da alxuraan ànd naag man di ma gunge ba aljanna nga xam ne mooy këru sax ga di këru xéewal ga di këru mébét ga alxam mooy sama àndandoo ba aljanna ma may gunge ba aljanna raafaqani mushayian lil janna daaril qaraari wal muna wal minna neen yow alxuraan def naa la ngay sama xarit def la ngay sama soppe yow ma nga xam doy doy doy nga ma wëlis benn docteur bu mën a doon rek doy nga ma ci docteur jaaltuka dëhra xalilan yaa xabib yaa man xanitu bi ka an kulli tabib nee na yàlla barkeel na sama dund ci yow ci sa barke yow alxuraan yàlla barkeel na sama dund ci sa barke yow alxuraan tayit ci la ma yàlla ci sa barke la ma yàlla woom matale xéewal goo xam ne ak yool boo xam ne du dog bu mukk baaraka lii fii umurillahul karim bika wali taxudu ajran la yarim moo tax doy nga ma sëkk yow alxuraan woomalal nga ma musal nga ma teral nga ma sàmm nga ma moomloo nga ma bégloo nga ma axnaytani asamtani karramtani xafastani mallaktani bashartani nan itam alxuraan yàlla moo ma yëkkati jëme aljanna yàlla moo ma yëkkati jëme aljanna man Sëriñ ci sa barke yow alxuraan moo tax ma wax laa ilaha illallah yàlla rek ay buur rafaani ilal jinaani llaahu bika wala ilaha illa llaahu yàlla wamman na ma boole maag yow alxuraan mag yow la yàlla boole wammat yow téere bii yàlla ma nga xam ne moo wax ci sa biir na dalikal kitaabu yow rekk téere bi yaquudu li yaa kitaabu man qaala fiika dalikal kitaabu alxuraan sëñ Tuubaa tegoon ko foo xam ne waxtu wu nekk al làmmiñam daawul taxaw ci tari alxuraan suy bind xasaayit it làmmiñ waa ngi tari xam nga loolu lu jafe la xam nga di bind lii di tarif saw làmmiñ di wax leneen lu bokkut ak moom te doo jaxase doo runge du jaxase la muy wax du jaxase li muy bind te day tarif yadi taxuttu wa lisaani yadlu la wax sama loxo day bind sama làmmiñ di tari alxuraan walla si yan xooli jihaati xidlu dara luy lor du jëm ci sama wet yadi taxuttu sama loxo day bind mu lisaani yëtloo sama waaye sama lam ngi jàngal faa mi ngi wax ne sama taar man si waa sama toilette euh, mooy jàng alxuraan sama métier mooy jàng sama taresoor mooy jàng alxuraan zeyni tilawatu ma lixtaarahu maliki wa xirfati wa kunuuzil aayu wal xurufu kenn aay yeeg xaraf alxuraan daal nee mooy te yàlla wambatal ma ko yàlla tànnal ma ko lim ma tànnal nag mooy sama toilette ci lay waaje mooy sama waajtaay duma waaje ay ay bassin riche mhm. waaye sama waajtaay mooy jàng alxuraan mooy sama métier mooy sama trésor euh, kon moo tax kon mu soññ ci mboolem ay nitam ci di ko jàng ak di ko dund bi ñëwee fekkoon na fi alxuraan nit ñi daa ko jàng daa ko mokkal naam waaye fi mu fekk alxuraan fi mu ko yóbbu wute na lool ndax fekk na mag ñi daa ko laawaane mooy ko masaan mokkal alxuraan day xotti caay joo xam ne dana mat fanweeri meetar takk dara ci ndigg luy diriku nga xam ne fu mu jaar ba jàll ko romb xam ne am am kaa nga jaaroon fii seen caay jooju nag fecc fecc dong lañ ko doon doy mooy bi ne ci pénc dañuy tari alxuraan suñ àggee ci wax na baat yi dafa niroo dañ ko dañ koy def ko lu mel ne ay taas ñuy tëgg ndënd ñu di ko fecc suñ masaan dem ci dëkk wax daara am na fa it dañu dal ca pénc ma yónnee ci seen daara bi ne na na dongam bu mu gën a wóolu mu bind robo indil ma ma topp ko suñ bindee robo indil ko indi daaji da koy topp su dee waaye gis ci ab ak ak ab yàq day yéey xalima ba mokk mu sëpp ko ci daaji riij ko ci ne ko daal di wax ne rëppeelu nga rëppeelu nga del del del dëkk jàng ma xaw del jàng bi mbaa nga dëkk dëkkee nafar xam nu ñu ko waxee aw taas lay doon daal boo ne ndënd yi daal di fëgg nag mu fettax nag boole ko loola ñu deen tuur xaalis bu dul jeex loolu mooy laawaan noonu lañ doon fayee alxuraan bi mu ñëwee ne ngir dindi loola ku ko joxub kaamil mu jox la ci xéewal loo xam ne dootoo soxla kenn mën nga ci dund leen mu deen te du jeex tuur la ci xéewal yoo xam ne te ku ñëw ci moom jox ko kaamil maanaam yitte jam lay jox ak nam lay fonkeek nam nga xam ne li fa yaa ngi fay toog moom day baagante dama ko ñëw saa bu duggee ci bi lu attan rek indi ñëw ñëw ña xëpp la ba booy dem la lam lay jox dañ la koy ngàbbule su xa su masaan mboolem masaan bari itam su ko man su suñu alxaan dikkee jox alxaan day mel ni kenn nekkul fa kooku doo nga fa nekk lay waxal bu waxee moom la koy seereloo du day mel daal kenn néew fa mu doo nga fa nekk dootu wax ak kenn moo tax mu daa wax ne ndaw lu man alxuraan xawma sikkam te ku ko xam bu ma ko wax fonkoon alxuraan ba tax ku ko mokkal su la ma ma yónnee ngay daw daan li déedéet bul daw doxa ndànk ndax danga ànd ak lu des gan yow warutoo dawal kenn su ma saan seen ci naaj yooyu koy bay tey ku ma ko xam da daa xanaa kéddu bu ñu ko mën ne dikkal yow ci kaw ker gi yow warutoo warutoo dekkal kenn ci naaj ndax bu ñuy bu ñuy bàyyi alxuraan alxuraan a tax yow danga danga warutoo ngi di la bayal kon foofu tegoon alxuraan moom tax na daaree kaamil ci moom lañ ko mës a dégg ba àdduna soso ba léegi mooy tànn na mbooloo moo xam ne duñ amuñ mel ni métier mu du jàng alxuraan jàng alxuraan dong saa buñ jëlee suba jàngu kaamil su jëlee tisbaar jàngu kaamil suñ jëlee takkusaan jàng ñaari kaamil mbooloom ñaar fukki nit ak juróom-ñett lay doon du ko ëpp du ko yées nga xam ne semaine bu bu ne dañu da dana doon ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett nga xam ne ba mu ko sosee ba fii ñu koy wax musta jénn ba fii ñu koy waxee jumaay Tuubaa jee jàng nañ ko ci suba tesbaar ji dañ ko jàng musta jénn ba ba ko Sëñ Tuubaa sosee ba léegi amul benn bis bu musta jénn ca noona mbooloo mi musta manqué saa bu ci kenn jógee ñu wut ko ko remplacé loola ci moom la ñu ko mos a dégg nga xam ne ko daa jàngalu ni mu amoon daari kaamil ji jàng ne daari kaamil ji bind yoo xam ne bind kaamil barab boo xam ne saa saa buñ kaamil bu daanu ñu tàmbali beneen sëñ Lamin Jóob Dagana ci la bokkoon ne sëñ Tuubaa mas na leen bind loo kaamil ci benn bis astafala ñetti fan ñetti fan loolu am na mas na ko bind ci benn bis yi ne mas ko def waaye ñetti fan yi moom suñu mbir lañu dagal moo ko nettali tawoon ci bindkat yi la bokkoon nee weeru koor dafa xëy sëriñ bi woo weer wu xëy mooy waa ñaar fukki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar sëriñ bi woo ne nee na nun bindkat yi nu dikk bi ndikkee ñu ngi fekk mu mu ŋàbbu jukkib kayit bu mag ci loxoom bi agsee mu ne nu weer wi day xëy na dama bëgg bala ne taafeer ngeen jébbalum kaamil ndax da ngeen ko man ñu ne ko waaw Mbàkke nee na mu jox na kayit googee ne ba demee dañ ko séddoo kon nag ñu ne diw sàngam tàmbalee barab sàngam barab sàngam xet wi ngay njëkk a bind na tàmbalee baat sàngam xet wi ngay mujj bind na daanoo baat sàngam xet wu nekk na doon nangami bind kenn ku nekk baat bañ la tàmbali loo moo tàmbali sa xet wu njëkk baat bañ la yamloo moo tëj sa xet wu mujj te amul paas widd amul rajjal amul yaraaxal seen xel mi yëpp màndaxoo bañ ko dëppalee dangay jàpp ni kenn ko bind ñooñu ñëbal ko ñu jébal ko ñaar fukki fan juróom juróom-ñeent ci weeru koor yi gën a takkusaan mu téye ko sant yàlla ne ndax mas ngeen a dégg mbaa ngeen mas su gis ko am lu mel nii ñu ne ko déedéet mooy day firndeel rek moom gi moom alxuraan moom gi moom alxuraan nag ajjuma jëy cay toppa insha allah dañ dañ leer si nan la moomee alxuraan kon daal foofu la am jaaroon alxuraan daa ko bind la ca topp kon dañ ko leer insha ci émission ba ca ba ca ba ca ba ca topp waaye ñoom ñoo ko defoon itam mu dig leen ay xéewal yu màgg a màgg nam leen ko bindoo ñett fan na leen ko bindoo itam ci benn bis boo xam ne benn bis yéen bind kaay mi maas ko ci suxi def ci lépp jébal ko ci bis bi kon day moom rek wéy na moom alxuraan moo ko moom kon incha allah kon dafa mel ni waxtu yi dab nanu kon foofu leen teg sunu baaram incha allah ci benn ajuma ci waxtu yi seen mbokk sëñ Mor Mbacke seen émission yi xam si diine dig leen daj incha allah benn ajuma ci waxtu di ñaan li gën ci noonu yàlla ko sunu boon euh, defal dëppale ko li nu gënal sunu boom xiir nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني usni ala allahi wal ikrama basharani wa kaana lillahu bitabshiri wal amani